te des na pàcc yu am solo te bi ci ëpp solo mooy discours monsieur le président de la république donc damay jox ñi fi toogal gouvernement bi kenn ku nekk jël euh, juróomi simili euh, ci sensibilité boppam ci li fi jot a génn ci panélistes yi mu xool lu mu ciy jukki rek ak lu mu ci andi ci leeral wala ci euh, complément kon ñu commencé ko ca Alinaar day remonté ba mu egsi ci Abdourahmane Merci beaucoup, euh, Monsieur le Premier ministre, euh, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre maa ngi lay sant di gërëm ak euh, sama naataango yi ba fi toogal question yu bari soulevé nañ ko ci première intervention bi euh, UNACOIS Euh, intervenir ci secteur informel la secteur informel bi ñu ko évaluer au Sénégal trois millions cinq cent mille entreprises individuelles la donc moom moo nekk premier bassin d'entreprise au Sénégal su ñu bëggee résultat yu ñu affiché fii ñu atteindre ko mooy ñu nekk au même niveau que Maroc ak Singapour à savoir cinq cent entreprises à 700 entreprises pour 10 000 habitants pour 10 000 habitants je crois que foofu mooy bassin bi nga xamante ni ci lañ war a mën a puiser pour véritablement asseoir des entreprises très solides ndax am nañ initiative bi liberté économique bi am na foofu dañuy wax sax ni euh, bu naan suñu économie amul liberté économique boobu c'est une fausse analyse qu'on fait parce que dix pour cent seulement ou moins de dix pour cent ñooy ay entreprises formelles quatre-vingt-dix-sept pour cent sont des entreprises informelles qui bénéficie de toute la liberté qu'il faut pour entreprendre defe naa bu fekkee dañoo bëgg a résoudre ce problème là foofu la ñuy gën a accès suñu suñu suñuy mesure beneen point bi mooy pour que loolu yëpp dox il faut une administration performante administration boo xamante ni elle est moins euh, administrante, mais beaucoup plus opérationnelle. Donc, il va falloir réformer l'État, comme on l'a dit, dans, en profondeur pour que procédure avec intervention ak le droit même, parce que la réforme économique commence par la réforme du droit et de la justice. boo réformer justice di nga préserver les biens alalu nit ñi di nga préserver deretu nit ñi di nga préserver honneuru nit ñi ci loolu ñett yooyu yëpp dañoo sacré donc ordre libéraux yi sax loolu la ñuy wax vous voulez réformer l'économie réformer le droit économique réformer la justice je pense que euh, vision bi teg na ko te incha allah xam naa ni dinañ ci def kemtulaay kartan pour mën a yegg foofu agriculture nag mooy euh, la clé du développement parce que boo bëggee euh, économie dox da ngay nourrir une population à bas coût pays yi réussir seen développement économique yépp dañoo am une forte productivité qui permet de nourrir la population soo demee Chine comparaison boobu sax boo demee ci tableau productivité da nga koy gis da ngay gis ni ñun pour ñu produire un kilo de riz il nous faut trente minutes pour un ouvrier qualifié travailler trente minutes pour avoir un kilo de riz alors que de l'autre côté il lui suffit simplement de huit à neuf minutes pour avoir un kilo de riz mën nañ multiplier ces exemples la pour montrer que nos produits ne sont pas compétitifs et pour avoir compétitivité boobu il faut que ñu daal di utiliser beaucoup d' énergie dañu defee ni sax agriculture mooy secteur bi nga xam ne sax utilise moins d' alors que c' est l'un des secteurs qui utilise le plus d' énergie pays développés yëpp da ngay xool combien de kilowatt heure par personne ces pays là utilisent soo ko xoolee nga répartir ko par secteur vous verrez que l'énergie est la clé du développement résoudre les problèmes énergétiques c'est irriguer toute l'économie soo demee ci matrice de comptabilité sociale bi sax da nga koy gis ni le secteur de l'énergie est le secteur qui irrigue le plus tous les autres secteurs moteur de croissance yi nu jël fii soo leen xoolee tourisme tamit ci la bokk ndax tourisme c'est un secteur qui consomme tout ce que produit quasiment tous les autres secteurs donc développer le le, le tourisme c'est développer développer la culture c'est développer Euh, euh, euh, l'énergie s'est développée, le secteur de l'énergie s'est développé, l'agriculture, ainsi de suite. Donc, euh, moteur de croissance quatre moteurs de croissance yi ñu retenir fii mooy moteur de croissance yi nga xamante ne suñ ci taxawee ak filières yi ñu accompagner leen en mettant tout l'écosystème en place parce que écosystème bi c'est des entrepreneurs qui prennent des risques des salariés bien formés et motivés des coûts de l'énergie très faibles et un État qui veille au grain pour pouvoir réguler et tout ça je pense bien que mi ngi ci document bi ci dina dina dinañ ko dinañ ko euh, dinañ ko yembal beneen aspect bi ma euh, souligner mooy euh, l'aspect lié également à, à, à au textile qui est fondamental le premier employeur du Sénégal ce les c'est la couture le textile deux cent mille donc développer l'industrie textile c'est en même temps accompagner 200 000 travailleurs. Et ça, il faut justement une modernisation de ce secteur-là pour mieux les accompagner, pour que la matière première soit disponible et qu'on valorise, comme le fait M. Monsieur le Président de la République et Madame la Prédème Dame, le, le, le, textile local, la confection locale pour que ces emplois-là puissent être valorisés et puissent également créer de la, de la richesse. li may tënk ci cinq minutes yi mooy euh, benn lima ma gisee vision bi mooy euh, mooy ñu fagaru tey ngir ëllëg doon naataange ak noflaay ci Sénégal loolu lay conclure jërëjëf jërëjëf euh, ñaari point laa bëggoon a jël muy li ñu wax ci financement ak euh, crédit ak surtout aussi li ñu wax ci levier monétaire euh, bu ngeen demee axe un objectif stratégique numéro trois dan ko jagleel intégralement le financement ku wax financement nag euh, wax ne mécanisme yi ndax yaakaar naa ne ina ko wax ne ko ci taux d'intérêt système bancaire baa ngi ci salle bi moom passé mu permet de parler de cette matière avec euh, wax comme ni mu leere problème mu Sénégal et loolu la ñuy jéem régler mooy dispositif d'accompagnement yi dispositif d'accompagnement yi bari na lool mais li ñuy xaar ci dispositif yi amuñu ko ci mooy ne structure yi dañoo jaxasoo dama leen daan tooñ léegi-léegi sax li leen wax musuma gis benn réunion boo xam ne bureau de mise à niveau ADPME FONGIP bokk nañ ko toog ci benn place bu ñu toogee rek BCEAO leen woo donc effort yi nar a def mooy fexe ba dispositif de financement yi ñu recenser leen entièrement rationaliser leen mettre leen en synergie yaakaar naa ni kenn du réformer de dans ce pays la ni ma amoon comme place u acteur en matière de financement on ne va pas créer quelque chose d' autre jërul ñu yokk dara nanu fexe gars yi ku ci ne liggéey ak sa morom ku ci ne nekk fa nga war a nekk ndax mënuñu comprendre par exemple lu mel ni caisse de dépôt et consignation wala IPRES nangam naa nga xam ne ñoom c'est des ils ont de l'argent caisse de dépôt de l'argent à très bas coût IPRES de l'argent à long terme au lieu ñu nekk ce qu'on les appelle des investisseurs ñuy dem ñoom ci seen bopp di def habitat par exemple si on prend le cas de l'IPRES et cetera donc mécanisme de financement yi ma dal leen seen xel dans le dispositif ce qu'on li ñuy def mooy fexe rek dispositif yi ñu rationaliser ko et surtout profiter aussi ci dispositif yi BCEAO def man je j'ai passé mon temps à dire au gens que lépp a ngi fi il y a une centrale des bilans des entreprises financières c'est-à-dire entreprises yi ci Sénégal yëpp yi déclaré impôt ña nga banque centrale te jox nañ leen code de crédit ku fa nekkul <laughs> na la wóor ne da nga am problème donc su état bi utiliser dispositif boobu utiliser également le dispositif de promotion des de du financement des PME bi nga xam ne ne Seydina Ndiaye votre conseil spécial moo ko doon jiite dispositif bi pare na dem nan ba defar un mécanisme boo xam ne ne c'est directement une relation entre la des PME et les banque synergie bi moo manqué FONGIP léegi-léegi aussi ñu gis ko muy dem bay def loo xam ne ne du wàllam moom dafa war a ñëw atténuer le risque de crédit euh, li des aussi mooy bari na ay innovation yu nu wax ci document bi il faut que innovation yi ñu utiliser ko microfinance islamique décollé wul pour pourtant banque islamique de développement jox nañu luy tolloog 63 milliards ba léegi demul demul bu ñu jëlee crédit bàyyi mi ngi fii ndax PME PMI informel mënuñu développer lu dul à utiliser le crédit bail et dernier aspect bi ci financement bi mooy ce qu'on appelle le bureau d'information sur le crédit tey Sénégal képp ko am facture ndox am na benn kuréel boo xam ne ne tey xam na yow ndax da nga fay facture yu ndox te ku dul fay facture yu ndox du fay bor c'est aussi simple que sax foofu lan dépare ba ne au lieu bu ne nit ki yow da ngaa bëgg a leb mais xawma ndax da nga fay bor ku mësul leb kenn xamul ndax fa lay for bor mais 2018 la ñu décidé ramasser ñépp ñi nga xam ne ne muy facture Senelec muy facture ndox mu ñu am crédit mu nekk ci benn base ñu koy tuddee bureau d'information sur le crédit avec une cotation tous les dispositifs sont là li ci des rek mooy nit xam ne ne boo dee entreprise amal bilan da nga nekk ci central bilan bi mais pour nga nekk central bi il faut nga fay l'impôt monsieur le président de la république ku dul fay l'impôt mënul nekk ci central des bilans te loolu day loo xam ne ne yomb na te yaakaar naa ne bu buñ ko defee ak plan d'action bi ñuy tëral le financement ne sera plus un problème restera maintenant nu ñuy fexe ba ku ci ne banque bi wala microfinance bi ni lay gisee mu nekk gisin wu am solo leneen li tam maa ngi koy wax toujours avec mon collègue chargé de la microfinance il faut ñu dooleel mutuelle yi il faut ñu dooleel leen ñoom ñoo nekk ci gox goxaan yi ñoom ñoo xam lan moo nekk ci situation loolu itam day réforme yoo xam ne danañ ci liggéey maa jeexale ci levier monétaire bi euh, monsieur Kane boo demee page vingt et document bi ma nga fa lan fa bind bind nañ fa ne carrément il faut que monnaie bi nekk na un outil qui serve le développement je crois que bind nañ ko fi li ci am solo te premier ministre da koy wax président de la république bi nu ñëwee ñoom yaakaar naa ci campagne bi bala ñoo démarrer lan ne il est clair que le cadre africain bi na am dañ cee nekk et il faut que les réformes se poursuivent donc c'est sur ça que ça se joue ñu poursuivre réformes yi jël franc CFA bi ni mu mel ñu améliorer ko jël mécanisme de coopération yi ñu amélioré ko te loolu yaakaar naa ne ñi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey mais bu fekkoon ne dañ ko da bëggoon ñu bind ko ni nga ko xalaatee loolu débat dogmatique la boo xam ne ni fii ñu ci toll li ci am solo ñu xam ne ni que moo ne sera prise en charge je remercie